d'accord mais Seydina borom Sénégal maa ngi leen di nuyu. pendant deux mois ñu lay dégg amee ak ñu tegante salaam fan la nekk. waaw dama jaar France am benn contrat bu fa amee jóge fa ñu traité soirée année bi jóge amee dem Canada mu jógee Canada dama ñëw fii waroon na ñibbi sama doom waali li ma papa suma sañoon la xaar ma ko ma avancé sama biir toog xaar ko ci soirée bii waaye pare na waa Sénégal dama wax. la défense ñëw def Amérique. Canada ah, macha allah baax xewal nga xam nga boo nekkee artiste ay ati ati ati am ñu la bëgg fu ne yenn saa yi baax na nga dem seet leen ne nga vraiment aw ma lenn lu mu ci yéene ci lu dul sant yàlla suñu d'accord tey bi journée boo xam ne dañ ko xaar mais weer ci ginnaaw waaw xam nga. phénomène la pare muy bu ko mat sëkk la parce que xale boo xam ne vraiment yàqul aar la li njëkk ci li ma séntu ci moom gis ko ci moom gis ne ay bëñum nga njëkk a xam ne bëggul ñaaw di dégg nit ñi Wally man xol bu mu yor mooy li papam doon wax dama ko def a jël yàllaa ko fi wàcce rek daal mu bëgg rek ñu ñaanal ko gudd fan ak wér ñu mën daal gën ko mën avancement bu avancement artistique suñu amoon ñett juróom benn artiste bi so léegi si vidéo yi jaxate yàlla ko yàlla mu def vidéo waali jox ma lii jox ma lii xalaat ko ci moom gis ci moom li ñu def moo tax kenn ku ko du yàq yàlla dañ ko yaakaar moo tax ñu bari li may wax nag xam-xam nii macha am na leneen ñu ci na ginnaaw doon sama ginnaaw ma naan waali ñu bëri tam moom laa doon wax tey dëgg ñëw na ci kanamu fenn. maanaam damay def rek li bëgg di ko gërëm ko ñaanal gudd fan ak wér te nag nga xam ne moom moom bëbët mu ne ko te international daal moo ko yàlla daal mu boobu muy doon tournoi international parce que moo ngi New York ginnaaw ëllëg moo ngi dem Columbus ndax que ngay nekk ci tournoi bi ba tey non damay ñibbi bëggoon na nag ma dem Atlanta ak Columbus fu mu nekk nii faw ma dem dafa am ay contrat yoo weesu naa daanaka guddi si sax foo mu dellu sali soirée sali day almadi demaat ko foofu nga mu dem benn annonce léegi exclusivité bi maye ko ci biir sal bi dina wàcc album album Wally Seck moom ci salle waaw xam nga nag boo nekkee maanaam ci kaw macha allah yàlla fa yàgg nit ñi toujours dañ lay ci lu bees. barke borom gën a yàggul mais nit ñi ñoo ko laaj comme nag nit ñi ñoo ko te moom self man man dafa am dëkk bu gën a xam naa ni bu gënee nit ñi dañ kontaan mës naa toog kër waa muy liggéey may compter ba soixante dix way man ko fils lii fan nga ko jëmee mun ma di way rek su ko waxee gëm naa ko te it doomu gaynde doomu ñay kenn du ko ñaanal mu yaram du ko ñaanal mu fan booy rek lay def am harmonie xam musique bëgg musique bu gisee wàll bu nekkee si scène doo ko sax xàmme man noonu laa mel El Hadj Diouf ci terrain doo ko xàmme Sadio Mané ci terrain yàlla na ko yàlla indilaat dootoo ko xàmmee donc na ñëpp xaar le 19 décembre sama doom jëndal neex rek.

jugee fii la jugee béy dama bëgg bu ñuy weesoo ñu dem de Fatou Mbaye ah, ah, yéen bi bu fa jugee seeti Malick yéen bi waaw waaw aha waaw bu ne ma ne comme